dal leen ak jàmm gi seen xibaaru mbatit What's up? Just about it rek maa ngi dëkkee di fight. Wooda. sànni ma ñaan ci kaw na ma ci wooda. yaakaar ci yàlla moo gën ma yaakaar ci kenn. bu nekkoon te yow rek la doon te gëm naa ne du ma dem fenn sànni ma ñaan mooy turu album bi nga xam ne artiste rappeur bile di Zeus Bandi génnee na ko moom moomule di ndaw boo xam ne bu siiw la ci diwaanu mbuur ak li ko wër te di yëngu ci wàllu rap ginnaaw bu mu génnee mixtape ba mu njëkk bi nga xam ne am na lu toll ci fukki titre yoo xam ne mi ngi ci wax lu jëm ci wàllu yee ndaw ñi naka la war a taxawee ci mim réew nañ ci ànd ak Moustapha Sall. salaamaaleykum salaamaaleykum. di nuyu ñëw monsieur Boy Zeus la from Mbour Talibi Bamba. c'est un jeune artiste rappeur. musicien très connu dans le département de Mbour, Zeus vient de sortir son premier mixtape composé de dix titres. mixtape bi moo doon ab genre album la. dañoo ne Sandi ma lu tax ma tuddee ko Sandi ma am na Sandi ma ak dëgg-dëgg ak jox ma sa nop ak Mia ak maa ngi jégalu ak gladiateur ak gladiateur ak Flaw ak Bayma ak ak Bamba featuring Bàcc Masamba. waaw dix titres ma liggéey ko bu baax. selon lui. Il a travaillé d'arrache-pied pour en arriver là. Dans ses textes, Zeus développe les thèmes pour, pour participer à la sensibilisation de la nouvelle génération qui est la jeunesse. gëm-gëm moo tax ma yegg si fii tey ma job sama mixtape job ko gars yi dégg ko te buñ dégloo son yi dinañ xam ne bindantewu ma damaa bind ndax nit ku nekk tamit da ngay déglu mag waxu mag dafa am solo. mais même boo doonee ndaw boo bañee juum day déglu waxi waxi mag te man damay déglu sama waxi papa mooy sama sëriñ gone yi dañuy déglu seen waxi kilifa dañ ne bayree ne sa bayree la ñu wax nit ki ak lu mu mënti demee sa papa bu la defee benn affaire sax muñ ko ndax mooy sa waajur moo la jur may wax message bi mooy jeunesse bi ñu gëm caaxaan nañ ko bàyyi ñu liggéey jàppale seen ndey ñu xalaat ne suba dañuy am doom am jabar dañuy doon responsable loolu laay wax jeunesse bi ak lu mu ak jeunesse ñëpp nag bàyyi ma kenn sama bopp njëkkee avant tout Après la publication de son titre dénommé Samanyan, Zes Bandi se dit déterminé à apporter sa pierre à l'édification de la musique rap en général, mais dans son fief en particulier. Moustapha Sall Mbour Sud FM taxawal nañu benn master bu bees jëm ci wàllu réalisation ak création cinématographique bi nga xam ne ñaari kuréel ci wàllu njàng yu am solo ñoo ko sooke ñoo ko nar a doxal benn bi di ISAC institut supérieur des arts et culture beneen bi di UBS université université virtuelle di tax a jóg nag master bile moo di yokk lépp lu jëm ci wàllu xam-xam ak xarala ñeel ay ndaw yoo xam ne dañuy bëgg am xam-xam ci wàllu cinéma ak wàllu réalisation te duñ ko am nañ ci ànd ay leeral ak Ismaël Marcel Coly université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ak Université virtuelle du Sénégal ñu lëkkaloo amal lancement officiel bu master en réalisation et création cinématographique ci mercredi bi lee mbébét bi le master mooy amélioration qualité njàngale mi waaye it adapté ko ci besoin wu marché bi lee ki xam la lu ñu mel mooy Babacar mbay Diop di co-directeur bi le master. formation bi mën nañu wax ne euh, dafa am importance lool parce que gulet ñu ngi fi euh, créé formation boo xam ne mën naa ne amul mais surtout le fait que ñaari université publique bokk ko def loolu aussi mu nekk une première nañ xool euh, UVS ak UCAD nu ñuy boolee euh, seen pratique d'enseignement euh, nu ñuy boole certaines forces parce que ñu dañ ñëkkoon bëgg a créer master cinéma il ans mais bi ma demee ba def ay recherche aussi ma gis ne UVS daa bëgg créer master cinéma man bopp maa dem seet leen man leen ça de créer deux masters de cinéma dans deux universités publiques fànn bu ñu sukkandikuwee ci Christian Thiam di co-responsable bu bile master. benn bi euh, mooy former ay réalisateurs yi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci terrain bi filme defar film ñooñu c'est vraiment formation bu pratique la d'ailleurs sax ñoom seen diplôme de buñ ko balaa ñu koy am dañuy réaliser benn film en entier ak bu ñaareel bi mooy Sénégal d'ailleurs le premier film en Afrique noire sénégalais moo ko def donc euh, il était important pour ñu taxaw benn instant nag xool jàngat image yi ñuy génne ban impact lay am ci société bi. ngir réussite bile master kii ñu koy naan Moussa Lo di sàkku ci nguur gi ñu jàppale leen. pour lii dina tax ci ab lëkkaloo ñu mën a bénéficier wu ci euh, fonds d'appui bu industrie cinématographique nga xamante ni production ak tàggatu moo ko tax a jóg ngir dimbale lépp lu jëm ci wàllum cinéma woote bi nag ñu ngi ko jagleel képp ku nga xamante ni da nga yëngu ci loolee nga ñëw indi sa expérience ak sa xam-xam ngir ñu mën a tàggat nit ñi mu nekk njëriñu cinéma Sénégal ak Afrique. université bi le lu dul licence cours yi dina ci jeexital FESPACO bi. fii la ñu ndar ngeen jëf ci déglu bi. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. yeah yeah yeah bésu nekk rek maa ngi dëkkee di fight wóoda sànni ma ñaan ci kaw na ma ni ci wóoda yaakaar ci yàlla moo gën ma yaakaar ci kenn bu nekkoon te yow rek la doon gëm naa ne du dem fenn Sani ñaan c'est le nouvel album du jeune artiste rappeur Mouroua Zeus Bandi qui vient de sortir son premier mixtape composé de 10 titres. Les thèmes développés dans son œuvre tournent autour de la sensibilisation des jeunes. Nous l'écoutons au micro de Moustapha Sall. salaamaaleykum salaamaaleykum. di nuyu ñëw Mister Boy Zeus Bandi la from Mbour Talibé Bamba. c'est un jeune artiste rappeur musicien très connu dans le département de Mbour Zeus vient de sortir son premier mixtape composé de 10 titres. mixtape bi moo dañoo ne sànni ma waaw 10 litres ma liggéey ko bu baax. selon lui il a travaillé d'arrache-pied pour en arriver là. Dans ses textes, Zeus développe les thèmes pour, pour participer à la sensibilisation de la nouvelle génération qui est la jeunesse. gëm-gëm moo tax ma yegg si fii tey ma joob sama mixtape joob ko. Le message, c'est la persévérance et la confiance en soi. Il faut aussi beaucoup écouter les sages et aussi respecter ses parents et suivre leurs conseils. C'est ça que je donne comme orientation aux jeunes qui suivent le rap ici à Les conseils et surtout les orientations données par les parents, c'est essentiel. Moi-même qui vous parle, j'écoute très souvent mon père et c'est lui-même mon premier conseiller. La jeunesse doit être consciente de ses responsabilités et travailler davantage pour atteindre ses objectifs. faut éviter les futilités et se concentrer sur l'essentiel. C'est aussi un c'est aussi l'un des messages que je délivre Après la publication de son titre dénommé Sama Ñaan Zess Bandi s'est dit déterminé à apporter sa pierre à l'édification de la musique rap en général, mais dans son fief en particulier. sànni ma sànni ma sànni ma maa ngi sànni ma Moustapha Sall Mbour Sud FM. Et puis lancement d'un nouveau master en réalisation création cinématographique afin d'améliorer la qualité des enseignements et l'adaptation des besoins réels au marché du travail. Ce nouveau master a pour vocation de former des professionnels de haut niveau dans les techniques audiovisuelles et cinématographiques et dans la recherche et la communication audiovisuelle. Ismaël Marcel Colli a assisté à la cérémonie de lancement de ce nouveau master en codiplomation avec l'ISAC, Institut supérieur des arts et cultures, l'UVS, Université virtuelle du Sénégal. C'est mutualisation des efforts que l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'université virtuelle du Sénégal ont officiellement lancé ce mercredi le master en réalisation et création cinématographique. L'objectif est d'améliorer la qualité des enseignements et son adaptation aux besoins du marché, nous dit Babacar Mbaye Diop, co-directeur de ce nouveau master. La première pertinence qu'on peut relever dans les deux institutions, euh, nous avons des formations en art et en euh, À master agriculture, mais aussi à l'UVS, ils ont euh, des formations en audiovisuel. c'est la première pertinence, euh, voir comment mutualiser euh, nos forces, voir comment mutualiser nos, systèmes d'enseignement. La seconde pertinence, elle est euh, socio-économique parce qu'après la formation, les futurs euh, réalisateurs pourront intégrer le marché, Les ordres de formation sont doubles Diable soutient Christian Thiam, au responsable du D-Master. Il y a le master en réalisation, qui est réalisation pure. Ils vont faire des films, clôture leur master avec la réalisation d'un film. Et il y a le parcours recherche. C'est un parcours qui est unique dans son genre euh, aujourd'hui. C'est qu'on on veut vraiment se focaliser sur la recherche en audiovisuel. Aujourd'hui, euh, nous sommes tous là avec euh, plusieurs caméras, plusieurs téléphones qui filment et tout la recherche, de ces images sur la population Quel est l'impact des images que vous avez Pour une réussite de ce nouveau master, première du genre dans les universités publiques, le coordonnateur de l'UVS, Moussa Lo, sollicite l'accompagnement de l'État. Pour nous permettre, dans le cadre d'un partenariat, de pouvoir bénéficier de l'appui du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, un fonds destiné à la production cinématographique et à la formation pour contribuer au rayonnement de notre culture à travers le monde, de venir partager leurs expériences et expertises pour une formation au bénéfice du cinéma sénégalais et africain. Les critères d'accessibilité sont pour l'heure la licence pour la première année, la capacité minimale est de 12 étudiants, maximale de 50. Le démarrage du cours est prévu après le FESPACO. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi.